bu ñu mënoon am rekk teg ko ci toogu sangu ko parce que jaar na ko de te itam kilifa yi fi jaar yépp condamné nañu li tax ñu def ko dañ ñuy cax Lat Joor daf ñu cax Alburi daf ñu cax Xaaji Omar daf ñu cax Maodo daf ñu cax ma wax la ko te nag kenn ku ne yaay seet sa bopp yaay wax ak sa mbokk bu ko ñëpp defee mu baax Maodo daf ñu cax Hadj Omar daf ñu cax Lat Joor daf ñu cax Bourba Jolof daf ñu cax waaw ndax bu ñu xëyee kondam ne réew mi nii kenn ku ne wax ni réew la mu nga xam ni ku ñu xam foo jëm dafa ak seetal loolu seetal loolu Talla Jumar la mu waxoon ca ndar moo gën a metti parce que nee na bari na ku fi am cër te doo ko mujje bari na fi itam ku am wilaaya te doo ko fa mujje ñu ni ko lu tax mu ne aada ji aada ji moo tax Maodo dafa mësul gëm aada mësu ko gëm te daf ko condamné dafa mujj jëpp ñépp sëñ Babacar si nee na maa dem ba sëriñ Moussa Niang bind ma ca ndar ni ma kay dimbali mu ci góor gi dootuñu nuyu sax passé ñaari baat ñun ñëpp jaaxle nañu nee na ma ne nag tey ma dem waxi Maodo li ma ko bëgg a wax nag ne jàpp sama fit ne fabu dugg ci saxaar gi ñëw nit tey laa koy wax nee na ba ma ñëwee nee na daal sama dàll ya xamatuma sax fu mu féete walaay ndeysaan nee na naka laa ko ni waaye góor gi yow itam nit ñi nee na mu ni ma ana nit sa diggante ak yàlla jëlal sa baaraam bii joxoñ ma kenn ni ma kii nit la ne ba ma ne sa digganteeg yàlla nag ne mel ni dañ ma sotti ndox ne noon laa ca génn xam ni kii xam na li muy wax ah nee boo gisee ni ma gëdde te ñaari at ngi gisuma ko maa ngi soog ak si jóge ndaat ni damay am am lu fit laa ne ma ni ndeke man damay xaru nee na naka laa ko ni nit ñi rekk la mu takk ci sama kaw ni ma jëlal sa baaraam bi joxoñ ma kenn ni ma kii nit la nana ma fab bu jëkk daw ci sëriñ Moussa ni ko maa ngaa dem mu ni ma foo jëm ba ndar jeex na